annuel bu Thierno Mountaga Tall euh, bi ñuy euh, waajal fukkeel bi ci at mi ñu koy waajal bu baax a baax ab délégation bu takku ak it comité d'organisation bi ñëwoon nañu nemmeeku euh, Youssou Ndour fii ci télévision Futurs Médias daal nañ koy jaajëfal nag ci turu xalif bu Thierno Mountaga Tall ci way bi nga xamante ne nii jagleel na ko Cheikh Oumar Foutiyou Tall PDG bu groupe Futurs Médias moom it delloo leen jukkal bu baax a baax lam wax nag mooy daanu jël ay matuwaay yu mat sëkk lépp mën a yemb muy ci wàllu couverture ak lépp pafara ñi ngi demandaaw visite mënu ko woon gën a rëy ki waaye nag Cheikh Omar Foutiyou Tall moo dem dalal njabootu omarienne bi ak comité d'organisation bu ziyaara bi ñu ñëwoon indi message u xalif Thierno Madani Tall muy wone mbégteem ci Youssou Ndour ni mu rendre ki nga xam ne moo nekk maamam Thierno Madani Mountaga Ahmad Mountaga Cheikh Omar Foutiyou Tall bi nga xam ni tey moo ñu fi yabal ay njabootam rek a fi ne ñun nag di sargal monsieur le ministre yu Ndour ci ñaari anam benn bi mooy ni ku ne xam na Youssou li mu defal famille Omarienne defal ko Cheikh Omar Cheikh Omar nag loo ko defal mu fayal la ko boppam ndax Youssou dafa jël benn woy bu rëy jagleel ko El Hadj Omar Foutiou mais yemu fa ci biir woy bi def cee woy Thierno Seydou ak li mu nekkoon ak lu mu doonoon ci biir Sénégal ak Afrique de l'Ouest yemu ca ci woy bi dafa wax mun Mountaga li mu def ba woowee ko borom ziar bi am mbégte lool Youssou Ndour ne Cheikh Omar Foutiyou Tall moo nekk ki nga xam ne mooy dajale. am naa mbégte trop dama dama touché sax daf ma touché euh, ndax euh, sama baay bi ñu nekkee tout tànk daf ñu mës a wax ne que lépp loo leen di jóg na ngeen dem seen sëriñ mi ngi nii seen référence mi ngi nii seen ki nga xam ne que bu leen ñaanalee ngeen dem. kan moo mën a wax Sénégal tey di waxute euh, ci Umar euh, Foutiyu Taal mënoo ko ndax moom mooy ki nga xamee ni que moom moo dox diggante yépp diggante boo dem foofu nga moom nga fay fekk mu nekk trait d'union mu joxe ay ndigal sax ne TFM lépp lu mu defoon benn dina ko def ñaar ci fukkeelu édition ziara omarienne bi. ziara bi dañ si jublu Thierno Madani ne nee wax Youssou Ndour que chaque année daf ci doon taxaw. te mu ngi koy ñaax te def na ko joxe ne léegi instruction fu ñu toog mu gën cee taxaw ndax dixième anniversaire maamam boobu muy Thierno Mountaga Tall ñu war ko célébrer donc Youssou sant nañ ko gërëm nañ ko. dañoo nekk télévision dañoo nekk groupe de presse bañ nañ ko ba suñu télévision dañu ne ñu ñooy seetu Sénégal ngàll na ngeen daan def na ngeen ko yokk man de loolu laa wax. délégation famille omarienne bi ñëwoon nag daal di seet ci kii di ministre conseiller. Youssou Ndour rafetlu lu nu mel ne bëgg na saa su ne lii ñu koy amal.